mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di kontaan am mbégte ñëw fii ci Ngor seet fi xale bi nga xamante ni champion la muy xeeru Ngor numéro 2 mu jëm ci bis bu rëy jëm ci bis bu mag digganteem ak Koña numéro 2. Koña nekk xale boo xamante ni ndaanaan la ci làmb moom mii mu nekk ndaanaan ci làmb ki ko tëgg di le roi de Iba muy Assane Ndiaye. Baol production ñu war a fas yéene bëre le 16 janvier bi ñu jëm Xeeru Ngor def na signature contrat wax ak Koña wax waxloo xas-xasloo ba bis bi yegsi na looy bañ mu jàpp bul ko jàppal bis looy bañ mu am bul ko jàppal bis nan nga waajee combat bi ak lan nga fas yéene dénk xeer euh, Koña mi nga war a laaleel ak waa tund Ngor gi nga xamante ne ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay nuy waaw aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh sa sadri wa yassir li amri waxru uqdatan min lisaani yafqahu qawli jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass balaa may wax dara damay jaale sama bopp di jaale waa Ngor gépp Arouna Samba mi nga xamante ne sama frère la woon sama lépp la woon mosuma xewle te taxawul sama ginnaaw tey yàlla moom ko ma koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaare aljanay firdawsi waaw di nuyu waa Ngor gépp di leen wax ne le 16 yàggatul le géant du Cap-Vert dafa nu mu war a taxawee te allah dinañ ci taxaw bu wér. da ngay bëree xale boo xamante ne ñëpp duñ naatable mën a bëreem mu doon champion chef de l'état del ay riaye bu ne li traditionnel bi ñu di ko gis muy wane boppam nga ñëw ba stade Iba sax mu ne la yow mënoo bëre dalay jàngal bëre yanu ba ci kaw dóor ci suuf xanaa loolu moom doo ko seetaan. bu soobee yàlla dinaa ko daan bu soobee yàlla. di nga daan kan dinaa daan Koña 2. mu ngi lay xool. bu soobee yàlla Koña 2 dinaa la daan. bu la neexee dinaa la daan bu la naqaree dinaa la daan. bëri naa combat bu nekk sama carrière combat bi mooy sama quatorzième combat sama carrière mais taxawaay bi waa Ngor am ci combat bi mosuñu ko am ci combat. parce que dafa am fu ñu jëm yow ñoo ngi fi ëppoon président jaar yëpp ñoo ngi fi bési fi jaar yëpp ñu am si dynamique bu ñu nekk gars yi di liggéey lu metti soo ma xoolee boobu ba léegi xam ne maa ngi liggéey te bu jour ba ku ëpp lu mu liggéey ëpp doole ëpp fit ëpp sañ-sañ gën a pare yaa na ko yàlla may ndam. nee moo la dàq bëre moo la dàq xeex moo la ëppi mbokk moo la ëpp ginnaaw sax ci bëre. waaw loolu bu arbitre sifflé dina leer nit ki boo ko dàqee bëre bu arbitre sifflé wan ko ne yaa ko dàq bëre si bëre bi muy wax ne moo ko dàq dinaa ko si daan ngeen seen gémmañ yéen ñëpp. wallaahi bëre boobu muy wax ne moo siy favori gars yi naan moo siy favori bu ñëwee bëre ma daan ko si bëre ba ñëpp waaru. billaahi wallaahi tallaahi amul ma ciy daw non moom bu ko neexee mu dem drapeau de l'État bu ko neexee mu dem coupe du monde ku ne naataawul ne lamb ji bari na champion yoo xamante ne demuñu sax Dakaaru gi te toj nañ lamb ji yàlla mooy may ku nekk mais bu soobee yàlla le 16 incha allahu rabbi koo ñaata dinaa ko daan. nee na Iba de xam na ko ndax yanu ba ci kaw dóor ci suuf moo ko moom site boo dem di nga fa gis yanu Koña 2 ba ci kaw dóor ci suuf. waaw ak ñi muy bëreel ñi mu doon yenu ak ñi mu doon bëreel sax di leen daan du géant bi de kii géant bi la. yee c' est le genre du Cap Vert am bigili yu. luy loolu dama am doole. yow mi barke alxuraanu karim dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. wallaahi dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. bu jour baa nga xam dama am doole. yaa kooñaa kopp xam nga dama am doole mooy lan. moom gisuma dooleem parce que mënu ma koo gis. bu ñu taxawee max moom nii. ñu taxaw mu dem Iomar ma dem Iomar ñu posé wu su may bëre du fa bëre. man la su ma duggoon Iomar catégorie bu muy bëre du mu fa bëre. yow poids lourd yaa ko wax de man géant laa. doo dégg la géant di Cap maa ngi koy dégg maa ngi nii. laxatuma de. barki alxuraan. ngeen jëm ban wàll mobilisation ngeen ci toll ndax xam ngeen ne promoteur bi tëgg bis bi dafa soxla mbooloo mu bari wuy si la te lii ma gis ngor est-ce que dinañ dem eh, stade. ku ne xam na billet yi li muy jar. 3000 la. la. waaw ku jël 5 bolok lu muy waaj. te fe cinq bolok yëpp dinañ ñëw. dama ne la ku jël cinq bolok lan lay waaj. mobilisation bu rëy. cinq bolok yi matul. damay wax autorité ngor yi ñun li nekk suñu ginnaaw ñu ko drainer. amuñu doole bi. yee yàlla nattoon nañu benn affaire bu ñu génnee ñëpp génn ñun amuñu lu autorité ngor yi ñu lu waa ngor nañu waa ngor taxaw ngir yàlla ak yonente bi ñun ñuy taxaw de mais lu ñu taxaw doyul parce que dañu am fu ñu bëgg a yóbbu couleur ngor ci làmb te bu soobee yàlla dañ ko fay yóbbu. yee ku ñëwoon ngor ay jamono ci ginnaaw ñëwaat fi tey di nga xam ne làmb mu fi dund bu baax yee te dund boobu noonu dafa am ñu teg seen loxo ba tax mu yegg foofu te am na fu ñu ko bëgg a yóbbu feex roi des arènes bi ñëwul duñ bàyyi par force jaajëf xeeru maa lay nuy di la siyaar bu baax dañu gis bi nga jógee sa combat ak Boy Diop ñu dalal leen wasaare làmb yow ak Kogna 2 au début da nga ko doon minimiser lan moo tax nga jël combat bi non minimiser ma ko xam nga tamit làmb dafa am yoon bu dee ne làmb rek la ñuy wax mënoon noon am ku gën Konia 2. te ñëpp ne mënoon naa am ku gën Konia 2 parce que palmarès yi bokkul adversaire yi ñu bëreel bokkul ku dee ak sa bàmmeel mais dama fi nekk pour làmb nekk fi pour liggéey man liggéey ma loolu làmb su ma bëreewul damay perte chaque année damay bëre ñaar yoon. donc suñ ma ko joxee fay ma lu ma jaral mu doon suma adversaire ma war a mën a bëreeg moom làmb boole ñu damay bëreeg moom xool leneen parce que dama ko fas keneen daan daanaat keneen daanaat keneen balaa su ma est que est-ce tamit combat bi est-ce que tamit combat bi nekkul risque parce que yaa ngi jóge ci ñaari combat boo Diop ak Boy Yëmbal moom mu jóge ci Wës Jàmbar ak Ronaldinho yéen ñaar est-ce que combat bi ku daanu ak làmbam du sànku man sama làmb mënut a man làmb dama see bokk yee dama si def loo xamante ne ak lu métti métti rek làmb damay bàyyi xel yee su ma yemale woon fii sama carrière dinañ ne Xeeru defoon na fi nangam du dañ yee combat rek te incha allahu rabbi day muñ Konia 2 day muñ Modou Anta li mu wax mooy defet arrangé wul yéen ñaari mbër yëpp ndax ku ci nekk ñaari combat yu mujj arbitre yëkkatiwul loxoom man damay daan incha allah incha allahu rabbi dama koy daan si kattanu yàlla dinaa ko daan bu gaawee bu ñëwee bëri dëggal boppam mu gaaw su yéexee ma duma ko ba mu génn saako dama ci dégg benn surprise boo xam ne dinaa la ko wax pour sa supporters yi ñi nga xamante bi nii ñime nañ kaaw Paate Gambia ak Ba Jili Tarkindaa nee nañ pare nañ pour kaaw cent mille francs ci combat supporters yi balaa ñuy kaaw ñoom ñooñu nañ génne seen xaalis bu ñu tegee un million ma teg un million amuñu xaalis ñoom ñooñu amuñu xaalis luñ bëggee bu ñëwee si làmb ji yéen yéen a ngi fa luñ génnee teg ko taawul bi kaaw ma teg ko kaaw waaw wooteel say mbokk waaw di di woowaat su may mbokk rek bu ma ne su may mbokk génnuma Cap-Vert su ma ne génnuma cap mooy tànk Ngor Wakaam Yoof amuñu loolu ñoom yee te combat bi dafa doon combat boo xamante ne gars yu ñu ngi koy waaj ak doole te parce que bu ngeen gisee open press bi ni mu demee rek ngeen xam ne am na ñoo xamante ne maanaam ñu ngi sonn ci bés bi am lu mu leen jaral comprendre nga di woo ku si mel ni Amadou Gueye Ati ah le maire sortant de Ngor xam nga maa ngi koy woo le lion noir na si jàpp am na lu mu waxante ak ñun te lu mu mas a wax ak ñun def ko mais combat bi dañ ko siy woo bu baax a baax a baax parce que dafa am luñ ci bëgg xam di woo Antou Gueye Samba xam di ko wax na ñëw jàpp si bés bi bu si jàppee da si war a jàpp bu si jàppul da si war a jàpp di woo ñëpp ñi nga xamante ne ngor la ñu nekk moo xam nga déposé candidature moo xam nga bañ ko déposé parce que ñun on est là pour ngor te ñoom ñëpp ngor moo leen tax a jóg te ñun couleur ngor la ñuy kon na ñëw jàppale ñu te yàlla tax di koo xamante ne sama papa la sama lépp la muy docteur ñaa borom gisee envoyé na ma li may defal mënu ma ko wax wallahi même bu dul làmb weer day dee mu envoyé ma xaalis di ma may xaalis te defaluma ko dara maa ngi koy sant di ko gërëm li mu def si combat bi mënu ma taxaw di ko wax wallahi al azim maa ngi koy sant di ko gërëm di woo sama nijaay Karim Ndiaye borom black and white di woo Baye Boris borom la ngor yaatu na ak la ngor timis xam di woo sama nijaay Tra borom Noflaay Beats na ñëw jàpp ci bu baax a baax Omar Sey borom Rip Keur ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci bu baax a a baax di woo suñu grand frère muy Maro. Youssoupha Mbengue international sénégalais ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si bés bu baax baax a baax di woo grand yi ngor yëpp amul exception secteur yi nekk ngor yëpp maa leen di woo di woo booy ngor yëpp booy maa leen di woo waaw di woo grand yi nga xamante ne dañu sonn ci man muy waa xitma bi aw ma seen fay di leen wax ne bés bi seen bés la ndam li seen ndam la incha allah waaw koo ñaata li ma koy mujjee wax mooy li ma lay mujjee wax mooy ba bu ngir yàlla yonente bi rek ñëwul stade nga dugg ci géew bi li des dinaa ko réglé ñëw moom dina ko def ndax daa signé contrat waxal leneen na ñëw rek man bu ñëwee rek xel dal na li des garaawul bu jeexee bu xeexee ambulance yóbbu ko indi naa dinaa indaale ambulance dinaa ñun ku ñu xam-xam ne supporter lañ xam neexal feesal stade bi yëngal dox suñu dox di waa booy yëpp booy waa taxaw dëgër garage bi tarkindaay na ñëpp taxaw dëgër borom moto yi convoi bi na ñëpp taxaw dëgër ñu teel a génn teel a dem di wax mention spéciale sama gars yi sama criminel les première cadavres ak waa dof dofati am ma seen fay xam nga di wax jox ñëpp rendez-vous le 16 di wax ne gan gi bu bëree daanu bu xeexee daanu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf